Ablaye Ndiaye ngi noonu gaa yi ngi koy tàccu topp topp ko Ablaye Ndiaye ngi noonu Ablaye noonu comprendre naa yow Fat maa lay bëgg nga ne Ablaye Ndiaye. dafa yaw yaw nag bu ndox mee lu ne. ah yaru am solo. indiluñu benn problème fii indiluñu benn problème. ci dugub yaru rek. andi lu leen benn problème. mukk mbër mu yar rek daan ku réew waa CNG tey waa CNG Ablaye noonu gannaaw ba mu amee ndam ku saag bi waa CNG encaissé ay sarax rek lañ mën xoolal xoolal xoolal waa Ibrahima Maye ko moom waa ay sarax rek lañ mën Ablaye Ndiaye ngi noonu. première première réaction bi lan la. non foog ma def nii foog ma def nii waaw. lan moo tax foog nga def nii. dama fee xaw a géej ba pare mooy loolu. ndeysaan maa ngi yaa ngi nii man ñii laa am. ndax sa waay temps mu ngi raxas mbapat man ma ne si arène bi sa sa sa waay moom bàyyi na moom saa mo moo des ko. ma ñu gëj. ma moo kontaan rek xam nga su ma gisee ñaar ñi moom mooy lool bilaay walaay. bi moo nekkoon sama jumul sa cinquième wala sa sixième combat. cinq cinquième. cinquième combat quatre victoire benn défaite. waaw. dama gis nga ñëw xeex. amoo woon habitude boobu noonu say combat da nga doon ñëw rek jàpp mu jeex lan. xeexkat la xam nga xamoo loolu xeex rek laay def xam nga dañ doon xeex te kenn du fay bii nii dañ ñuy fay da ngay am dara moo loolu saa dama ko bëggoon vidéo ba pare xam nga soo ko vidéo ba pare day yomb a daan mais daa diw ba arbitre bi wax na ko ay bër rek lu ne la diwoo bër moom desatul Medina. toog lu yàgg bëre woo dafa mel ni dana lu muy wàññi mbër. waaw na xaw a wàññi mais commencement bi la nii da nga koy gérer waaw ñaar ñii xanaa gisoo leen. ak lan tey bi waaw ak lan tey bi ah. mooy loolu soo amee ñooñu looy ragal ak sama grand tafa ñëwagul tafa dem. tafa dem moo moo la andi. waaw moo ma andi waaw moo ma andi defal ma lépp liggéey loolu ñu lu métti ay 3 heures du matin la ñuy jóg di dem Dindia ba Kër Ndialo. mais ndekete yow ak Tapha Tine ren boole wu leen ndekete yàgg ngeen. <laughs> waaw déggal sa waay. dégg naa bi ngay bëree kirite sax Tapha Tine moo la doon may. waaw déggal sa waay waaw. sa waay mooy loolu. saa yi aw ma fayam barki Serigne Touba. Tapha aw ma fayam bilaay walaay taalaay. am na combat de. parce que du ko ñaanal tamit si combat bu mu jëm suñu borom dafa ko ndam bu rëy lu toll nii Tapha ñu ne ba combat mi jeexee day yow barki Alxuraan 3 heures mooy taxaw buntu kër ga ba sunu gardien bi ne ma waa laay kii kala. ma ne ko Tapha mu ne ma moo leen yee heure bi xanaa am combat ma ne ko déedéet daa bëgg am dara rek xam nga sama copain Ngel John daa am combat di ko ñaanal xam nga mu daan am ndam bu guy Ndiaye ñoom Dëcce Zal Bambey sama gars yëpp xam nga mooy loolu. lan la war a yokk lan nga war a yokk. ah lan war yokk. lépp que boo boo boo boo liyee fii boo bëree di xam loo war a wàññi ak loo war a def. te instant dañu gën a am dara parce que grand bi bàyyiwuñu suñu saxu quoi mooy lool mën nga bëriwaat beneen combat bala saison. bu koy lijjantiwaat léegi. kan comme kan. non du ma wax kenn man dama am staff yow fekk nga ma may job fële si kii sama coach mooy teg lu métti. yaa ko bëri di ngeen bëre. non man du ma bëree sérieux non loolu yëpp staff bi la. yow pare nañ def benn mission. jërëjëf kooku mooy Ablaye Ndiaye. kii waa kër Garga Mbossé yaa ngi nii. ay waay ana Garga Mbossé namu naa la. ça naa def. ana Garga Mbossé. Garga muy États-Unis muy États-Unis booy jógee ci làmb dafa mel ni da ngay. da nga yore jukkee mbër yow lan normal euh, kii sama rakk la Ablaye sama rakk la waaw Mamadou nekk sama rakk donc mënu ma toog di leen di di euh, toog sama kër di leen seetaan déedéet je ma ñëw fii ba fii. aal bi ngay àndal laaw aal bi aal bi lan la. c'est normal dërëtu làmb moo nekk ci ñun. si bàyyi ak suñu maam yi ñoom ay mbër la ñu waaw deretu làmb bi la loolu kese la waaw du dara waaw xam nga deretu làmb bu jaxasoo ak deretu Baye Fall il faut nga tàng waaw loolu kese la jërëjëf waay ak sa merci. la ci victoire bi. kontaan rek sant yàlla bu baax di di ko ñaanal yàlla bu amaatee combat amaat ndam ay yeneen ndam ay yeneen ndam ay yeneen ndam. parce que booy bu yaru la waaw xam ay magam respecté ay magam kon ñu ngi ñaanal yàlla waaw yàlla mi yor ndam daal di ko may ay ndam ku waa parce que mérité na ko te mooy suñu seetaan nga combat bi pour lan moo ko manqué. bon géej a rek xam nga moom dafa géej a bëre loolu rek la encore dañ ko yëpp ne ko bul yàkkamte dara moo tax combat bi demee nii mais ñëpp xam nañ ne ab lii ak Ablaye du combat Ablaye amul ñaari Maurice. waaw ñu nañ ko jox adversaire am yi ndax am na bi ay adversaire nañ ko jox adversaire am yi. yow ñun la war a ah, waaw xam nga leen man du ma tudd tur mais yow yow mi ah moom moo de Balla làmb la. Fils de waaw. waaw parce que yàlla combat bu neex la combat bu jaadu la bu neex moom Fils de Balla moo gën a nekk làmb sax booy bi sax mu yor la booy bi dëkk moo nekk si ginnaawam dëkk. combat bi nu mu demee la sax moo tax gars yi xam nga rek mais su fekkuloon coupe d'Afrique affaire yooyu noonu booy bi dafa yaru ñëpp ñëpp a nekk si ginnaawam joala ñëpp a koy jàppale Dakar ñëpp da ko jox Fils de Balla booy ëpp ñu ko mbooloo de dafa am mbooloo dafa mën a bëre te doomu mbër la comme ñëpp da ko gars yi jël amul leneen yow nag sa combat santan ñi combat bi waa dat la ñuy xaar rek gars yi ñoo amagul dat dégg naa yaa ko yàq ah dégg naa yaa tax combat bi yéex man maa tax combat bi yéex yéex man maa tax mu yéex waaw waroon ngeen a bëre ci combat si tamit no foofu lañ ñu waroon wax ne foofu mais gaa yi ñoo ma wax ne dañ may utalaat beneen beneen date man du des si man de man kan bu doon suba suba pare naa. daa yaa ngi gundaan daal ci mbapat bi. waaw loolu loolu taamu nañ ko. Ah. waaw foofu mooy foofu la ñuy defee entraînement waaw. au bële Ablaye Ndiaye mu ne ma du ma bëreeg séeréer. ah. dama ne ko yàgg Ablaye Ndiaye mu ne du bëreeg séeréer. au bële Ablaye Ndiaye loolu du combat mun nañ di bëre mbapat nii mais ñooñu ñaan mënuñu bëre door. mun leen bëre aram a déedéet déedéet. l'an 2000 nag. ah. te ñëpp war a ñëwaat. waaw gis nga gars yi ñooy rasu rek gars yi ñooy ut ay yoon yu neex xam nañ ne yoon bu neex amu fi mais nañu jël nañ jëlante nañu jëlante ñu bëre suñu biir balaa suñu carrière di moo gën ñuy moy tuwante lamb yaagul. am na promoteur bu ne bu fekkee pare nga pour tëgg fekk mu ànd ak Thiès ñu jox la avance. xanaa na indi xaalis bi rek. Thiès ñu bëri Saalam Saalam. ma ragal ma loolu. wala penc Medina Fall foofu. non jarul penc ma nañ dem Saal ba si biir këram Saalam. signature beeg yëpp ak laa ma ma la jox yow da ngay sóob. Eh, mbañik mbañik mbañik lamb jeex na lamb jeex na ci yow Samb chaque man la lay wax man la lay Karbala. man la lay wax chaque jour waaw. moom la sama xarit la. voilà borom kat kataña. voilà borom kataña xaw ma. waaw gis nga ko man la lay wax man maay Karbala man maa bëroon trop daal mais gars yi dem nañ ñu jël ñu bëree. dañ laa war a jël. waaw. waaw dafa loolu Lamine. waaw baax na ñoo la gën a kontaan merci beaucoup. jërëjëf kontaan nañu waaw dafa war a moog lay Ndiaye. eh bul tas kër